jërëjëf mbokk internet ñoo ngi leen di nuyu seen soppe Bour Gueweul dellusiwaat ak yéen situation boo xam ne defe naa ne ñun ñëpp ñoo ci tegandoo suñu bët di mbënn mi tubaab naan ko inondation tey nag ñu waaxu bàyyi lépp lu doon def ñëw fi nga xamante ne que moom mooy jàmm gën jàmm gën bu muy souffrir ci inondation yi ak léegi yàgg na c'est une très vieille histoire ba jàppoon ni que mbir mi jeex na dem nag à ma grande surprise ñu gis benn jeune bu ñuy wax Noreyni ànd ak toutes les jeunes de la commune de Diamaguène jàkkaarloog le ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome wax ko li nga xamante ne que moom la waa gën di dund tey nag ak ci ne nañu dem seeti nooray nii seeti xale yi Diamaguène gën gën a xam situation bi nga xamante ne que gën ñu ngi koy jànkuwanteel tey ci inondation yi. yaakaar naan daal li olof Ndiaye naan lu ne fàng moom kenn du ko jeex te ñëpp ñoo ko gisandoo problème inondation yi mais nag mu nekk loo xam ne duñ na gulet bi ñu nekk ay xale. ci ndox mi la ñu raam màgg di dox ci ndox mi ba doy nii ñu doy mu nekk nag situation yoo xam ne yu metti yu catastrophe. doo sax comprendre parfois au niveau de Diamaguène bloc 16 bi poste Thiaré ba Fass Mbao depuis cinq ñuy dund ci souffrance bi. mu nekk dafa mel ni que dañ leen a fàtte. waaw dañ fàtte ndax parfois tu te pose la question sax ne gën est-ce que ci Sénégal la bokk Diamaguène est-ce que ci Dakar la bokk Diamaguène est-ce que ci département Pikine la bokk. ndax tey jii plan décennal bi boo ko xoolee ñun gisuñu ci jàmm gën te bu ñu ne jàmm gën bloc 16 bi moo wax tax mu nekk entre ñaari commune muy jàmm gën Sicap Mbao di Tivaouane jag saaw ñu fàtte ñu ci lépp ndax dëkk bi ko mag ñi sancee defal ñu jumaa defal ñu église defal ñu poste de santé defal ñu yenn yi xëccal ñu courant xëccal ñu lépp depuis 1960 dëkk boobu kon mag ñi wàccu nañu ñun li si des muy wàllu assainissement état moo ko warloo ak ñun ndax ci population bi lañ bokk ba élection amee dañuy dem voté ji di def acte citoyenneté mais en revanche mais ñun gisuñu autorité yi wala ñu. man dama dugg léegi ci biir koñ yi mais gis naa fa ay kër yoo xam ne ak ay quartiers yoo xam ni euh, dafa mel ni que même en door de nawet bi même situation bi la dund. waaw boo xoolee suñu tànk yi ñun ñii ñëpp rek boo xoolee ci ndox mi lañ jóge ndax mënuñoo tëdd suñu lal di taal suñu ventilo di ànd ak péex. suñu yenn dëkkandoo yi quatre jours a ngi ni nelawuñu moo tax ñu dem ci ñoom bokk ak ñoom naqar bi te bi ñu duggee li nga gis la gis mooy tey jii kër yoo xam ne tey jii amuñu ay moyen dem nañ ba sax inondation bi dem na ba yóbbu leen ci pauvreté ndax ndox kenn mënul dëkk ak moom tey bëri na kër yu ñu dugg dañoo fekk ñu jël ay cin wéer ko fekk borom kër yi toog fekk yaay yi toog fekk ñëpp toog mu nekk loo xam ne kenn mënu koo wax comme li nga wax en dehors da nawet bi sax ndox mi du fa jugee. man nga jàkkaaroog le ministre de l' intérieur euh, wax ak moom benn coup de cœur boo xam ni Sénégal yëpp dañu maase wala certains se demandent que sax mais jeune bi kan la. mais boo gisee loolu parfois da ngay wax ak esprit mais démb bi ma waxee ministre bi c' est pas ni qui parle mais c' est le cœur de Noreyni qui parle mu nekk jafe-jafe yoo xam ne dafa dafa dafa fees sunu bopp fees sunu xol. moo tax démb il fallait que bu ñu jàkkaarloo ki nga xam ne moom la ñu war a jàkkaarlool ñu génne ko malheureusement liñ ci metti mooy bi mbënd bi amee ba léegi suñu autorité locale yi nga xam ne ñoo nekk fi fii suñu leen ñu wàcc bokk ak ñun naqar bi. que jàmm gën am na maire parce que man wax ban xaw ma ko bokk. waa jàmm gën mooy li ma la wax rek question la booy posé tey boo ko posé woon population bi li ma lay wax jàmm gën est en marge entre deux communes ndax jàmm gën dafa rëy bloc benn commune bi tudd jàmm gën Sika Mbao benn commune bi tudd Tivaouane Diacksao mais en revanche ñoom gisuñu leen bi nga xamee ni mbënd mi am mi amee ba tey man de bi mbënd mi amee ba tey maa ngi ànd ak équipe bi yëpp di dugg ci terrain bi mais doxuñu benn yoon ba daseeg maire yi di wax nag problème mu jaamu gën moom moom lim la ci wax ni moom téere la si moom moo ñu mag fuuf bi muy jug di dox problème mu jaamu gën ñun ñu ngi jàng école xam nga li ma la boobu nekkagul dara ñun ñu nekk si affaire yi ba mu màgg bay bëre gis ko muy sonn ngir dëkk bi ñun tamit ñu topp si ginnaawam di ko dooneel parce que nit ku nekk fi nga dëkk nga am nit munoo am fu gën a rëy fi nga juddoo loo mun a doon ci dëkk bi bu guddi jotee da ngay ñibbi fi nga dëkk ñun jàmm gën lañ am moom dañ koo gis muy sonn ci dëkk bi xam nga ma la eh, problème inondation nag du benn yoon du ñaari yoon mooy li mu la wax rek ñun solution définitivement lañ soxla waaw parce que ay pompe yi nii fajul benn naxar ndax pompe rek coono la da nga koy gàddu jënd ji essence nangi nangi dugg ci ndox bi arbis sa tànk yi yàqu xam nga li la nga war a ngàcc ndox bi yóbbu ko ci canal bi canal boobu bu ndox bi ni muy demee kon lim la wax loolooy solution bi nañ ñu jàppale te xam ne jaamu gën ci dëkk bi la dëkk xaw ma jaamu gën ci dëkk bi la bokk gisa moom wax na lu am solo mooy ministre boobu noonu xaw ma kooku waru woon wàcc ñun soxla ko fi ndax xamul tax amuluñ benn njëriñ président Macky Sall bi nga xamante ne bi mu bëggee réew mi daa wàcc te li bi xam na nu mu mel xam na station bi xam na jagsaaw xam na fii nii yëpp bi mu ko soxlaa moom moo wàccal boppam ñëw ba fii dig ñu lu dul jeex dig ñu loo xamante ne ba dig ñu lu dul def ndax benn mi ngi nii ñaari taw la taw dëkk bi yëpp ñëpp génn ñun ñi dëkk si télé bii nii ñun mën nañu sant mais duñ sant à 100 pour cent parce que boo sant yàlla sa xarit mi ngi sa ginnaaw nga koy jàppale di ko ŋaccale sa yaay mi ngi si ginnaaw sa papa say mag say ñun jaamu nga dañoo am problème boobu noonu nañ ñu jàppale ci dëkk bi te bàyyi naxe yi ñuy naxe yi dëgg la nag état ah mënul defandoo lépp mais nañ nañ ñu jéemal dara looloo tax jeunes yi jug di defaral seen bopp ndax boo gisee nooree ne mii di jëlee ay pompe dem ci ay armère moo ngi ay cité ñuy lijjanti ji fu nekk ay pompe kon xam nañ ne état du def lépp mais ñun jeunesse bi pare nañ ñu nit pour defar suñu dëkk mais nañ ñu doole li leen laaj dafa yomb mooy géej gaa ngi nii nañ ñu fëqal télé bi route nationale baa ngi nii même pas matul sax ay une minute nga yegg fa lan mooy problème mu géej xanaa du ndox inondation yëpp géej la war a dem nañu bëtal télé bi defaral ñu suñuy canal télil ñu jàmm gën bi yëpp loolu lañ bëgg comme Pikine ñun dëkk yi gënuñu ñu Pikine gënuñu Géejawaay ñu Kër Masaar gënuñu dëkk bu mag la biñ ko keree léegi dafa yàgg te ay ponkal ñu ngi si biir dëkk bi du meer du kenn ñoo noonu ñoo war a góorgóorlu defar dëkk bi te xam ne dëkk si dëkk bi defar dëkk bee ko gën fuuf ñun nañu defaral dëkk bi ñu dañoo sonn on a marre xaw ma yaana marre lañ koy waxee nañu dimbali gaayan lii dafa neexul chaque at chaque at lii moo fi am guddi day jot yooyu di la dàq ngay xuus fii di xuus fee taxaw fii di naan kafe même année chaque année lool dafa mën a nekk dañ ñu dimbali benn année sax ñu dund galayaabe di dégg ndoxu taw bi te duñ ko gis. dëgg la jàmbaar. yeneen masaw ci ni ngeen def bu dugg ci dëkk bi ndax fii boo taxawee ci entrée bi war a dugg si rek gis nga ni mel dugub bi metti na trop te ñun jàmm ngeen ñaar lañ gis Siteu Noreyni gis ñu fi ñeneen ñuñ jàppale. te bëri na ay borom doole yu dëkk fii nii man sànq dama dama doon nga ndox fa laa jógee léegi léegi sama benn xarit dafa amee loxo tab bu metti war na yàlla dafa toog di ga di man ma koy sottil man fi ma dëkk amul ndox waaye man lu ma mën a am jàmm gën a ma ko gënal te waan pël laa ñibbi chaque jour ay deretu mooy daw sama yaram lu mu metti metti damay ñëw kon nag amaana ñun dañ bëgg ku ñu jàppale dañoo sonn ci ay politiciens ñun Macky Sall ñëw na fii nii ñun la ñu woo ñun ñoo dem accordé ki koy jëlee mu taxaw nii nuyu ñun ñëpp kon amaana ñun dañu war a dimbali bàyyi nax yu ñuy nax ñun dañ ci sonn ay ministre rek ay lii nga booy baare APS bi nekkul lu leen gënal dama jàpp ne ku sañoon da ngay romb jàmm gën ci jàmm waaye xoolal yow ngay tëdd sa yaay ngay teg ay xeer muy tëdd ci ay xeer am ñoo xam dañuy fanaane toog nii di xool ba bët set lépp ñu koy dund chaque année ñu dañoo sonn ci yenn affaire ñu nekkatuñ ay xale ay magum jëmm lañ xam nañ ñu ñuy nax politiciens yi bu ñu soxlaa dañuy ñëw ñun lu tax bu ñu leen soxlaa ñoom duñ leen gis chaque jour lii la ñuy dund pàcca pàcca ndox xuus war nañu dimbale ci lu bëri barki Seydina Mohamed sonn nañ jàmm amul bandi amul ku bon ñu baax fi dëkk dafa am image boo xam dañ koy jéem a séntu ci ñun ñun doxuñu ci loolu ñu xamal lañ bëgg jàmm moo ñu gënal Europe ñun fii lañ am dañ ñu ci jàppale daal ku ñu mën a jàppale nga ñëw nga jàppale ñu ci moment bii nag lañ ko soxlaa. jëf euh, Cheikh Omar euh, mu ngi noonu euh, tey seet si nañu ndawi jàmm gën comme ni ma ko waxee yàlla jiital ci norey ni jàmbaar ji la combattant laa ko tuddee ndax vraiment ñu ñuy dëkk ci dans les banlieues juddoo fu mel ni ay jàmm gën ay Grand Yoff ay nangam souvent dañuy manqué ay jeunes yu mel nii donc jeune la boo xam ni jeunesse bi nga koy jàppale jeunesse bi gëm nañ ko te léegi rek gis nga le grand promoteur laa taxawal fi Aline Gueye mu ne bi mu nekkee nooree bi mu nekkee xale ba tey ci cause yu jàmm gën ci la ma a taxaw te bu ñu ko jàppalee gëm nañ ko jàmm gën dina am changement waaye di wax mention spéciale à le grand champion Siteu ndax tey. maa ngi soog a dégg ci gox yi ñu ne inondation am na ci mille sangam mbër ma fa nekk def ci dooleem def ci jotam mbëri ay centaine de millions la ñuy fayeku xam naa wax la boo xam ne des fois mu naqari leen waaye ca gox ya ñuy nekk nañuy def comme ni Siteu def ànd ak nooray ni ànd ak jeune commune am lijjanti ji ay moto pompe lijjanti ji gasoil bu ci dem taxawu ndaw ñi loolu la ñuy xaar ci borom tur ci askan kon Siteu mention spéciale kon mbokk yi lii la ñu indi loon jàmm gën ànd ak yéen ñëw seet si nooré ni di leen jox dig daje ci yeneen i jamono ak seen mbokk Bour Gueweul sur Dakaractu